qur'aana ngi kemtan ya bari na jàngu ko bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ziyaar di balu àq di baal àq di ñëwaat ak ci suñu tafsirul quran suratul mulk tey xam ngeen ne ah, ñi ngi woon ci sootul mulki démb jeexul woon tey moom lañu bëgg a eggale insha allah ay yi nag yàlla subhanahu wa taala mi ngi ko waxoon wàcce woon ci ñi nga xamante ne waa màkk lañ ndaxte ñoom dañoo doon wax di jëw yenent bi di wax ci suuf ah, di di di di déewante di déewante yaakaar ne li ñuy wax nag yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam du ko dégg yàlla nag moom la leen di tontu fii xamal leen ni lu ngeen mënti wax rek yàlla moom xam na ko te dégg na ko wa asirru xaw wa asirru xaw qawlakum awi ijharu bi innahu alimum bi zaati sudur ala ya'lamu man xalaqa wa huwa al latiful xabir هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَمَّن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا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 فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نجي jégalu ci baat bu ak baat bu sonn bi yàlla mu ne wa asirru biral leen yellu leen maanaam wax leen ci suuf xawlakum li ngeen di wax yéen yéefar yi awi jaharu bi wala ngeen biral ko wax leen ci kaw wala ngeen wax ci suuf yàlla moom xam na lépp innahu naka moom yàlla alimun aji xam la bi zaati bi zaati suduuri ci li nekk ci dënn yi la ngay nëbb sax yàlla xam na yàlla mu ne alaa yaalamu ndax xamul man xalaqa ki nga xam ne moo bind wa huwa te moom <coughs> al-latiif mooy ki ñeewant jaamam ñëpp bëgg ñëpp alxabiir mooy ki dañ ci kumpa yàlla moom mi nga xam ne moo bind kay kooku moom moo gën a xam ñi mu bind ki li nga defar kay yow machine bi bu sonee rek xam nga bu paanee xam nga bu yàqoo xam nga yàlla noonu la xamee doomu aadama moo ko bind lépp la xam ci moom moo tax booy wax ci kaw ak ngay wax ci suuf yëpp yàlla nee na moo yem yéen jarul wax ci kaw suuf waaw ndax ngeen wax ci kaw ak xam naa ko man yàlla mu ne xanaa xamu leen ne kan mooy yàlla ba tey mi ngi si bàkk boppam ak di ko kañ mu ne huwa yàlla mooy ki nga xam ni jaala lakumul arda moo leen defal suuf si zalulan mu nekk lu yomba dox mu nooy népp mu maasale ko tàllal ko famshu yàlla mu ne dox leen fii manaakibiha ci kaw suuf si dox leen ci suuf si tabax leen ci suuf si Eh, côté yeeg lépp fu leen neex wakulu ngeen lekk min rizqihi ci wërsëg bi bàyyeekoo ci suuf si waaw man dama koo bind ngir yéen wa na nushur waaye nag xam leen ni bis dina ñëw ca yàlla ngeen di dellu yéen ñëpp bis dina ñëw ngeen dellu si man waaw yàlla mu ne man maa bind suuf si def ko pour yéen dox leen ci nu mu leen neexee am na ay xeer ami montagne ami doj ci biir ma def ci ay ndàmb def lépp ci biir ngir rek ngeen ragal yàlla xam ni waaye nag ngeen xam ni ci man ngeen di dellu si yéen ñëpp yàlla mu ne a amintum ndax da ngeen di wóolu maa fi samaay ki nekk ci kaw asamaan muy yàlla ak nguuram gu màgg googu ay yax bi kumul ard arba mu jikki-jikki rek xasaf si yeen suuf si maanaam maasale suuf si fa isa hiya su ko defee moom suuf si tamuuru mu nekk loo xamante ni dafay maasaloo yéen ndax da ngeen di yaakaaru leen ngeen toog ba mu yàgg rek ndax bàkkaar yu bari yi ngeen di def tooñ gi ngeen di tooñ yàlla yàlla jékki-jékki rek maasale suuf si ah seen kaw maasale ko ba nga xamante ne nii suuf si nekk loo xam ne dafay yëkkatiku seen kaw nekk lu eh, loo xam ne daal mënatu leen koo jëfandikoo xalaat du ngeen xalaat loolu yéen hmm? su ko neexee moom yàlla mu xasaf si def ci li ko neex waccel seen taw wacc musibah. yéen taw taw musiba waye nak yalla dafa yeureum dafa bëri yërmaande dafa lewet ci jaamam yi surtout xetu Muhammad daf len di yeexalal seen alak ak seen mbugal ndax fay bëggu ñu tuub bala ñuy taseeg moom yàlla mu ne am amintum ndax da ngay na foog ni da ngay na wolu man fi samaa'i ki nekk ci kaw an yursila ay yursila mu wacc alaykum ci yéen hasiban taw bo xamanteni di taw musiba lay doon waaw ndax da ngeen di yaakaar loolu ndax yaakaaru leen loolu mën a am taw boo xam ne day ànd ak ngelaw wala ngelaw wala mu nekk xaasaban ngelaw loo xam ne dafay ànd ak ay docog musiba bu baree bari fa sa taalamuuna xal seen ngeen a xam kay fa nazir ni nga xam ne noonu laa leen di xuppee pour lan ngeen mën a delloo ci dellu si yàlla yàlla mu ne wala xat kazzaba weddi na allazina gaa ñi nga xam ni min qablihim ñoo leen jiitu woon yow muhammad bu la ñuy ñi jiitu woon tamit dañoo weddi woon waaye laaj leen fa kay fa kaana naka la mujjee nakiiri sama mbugal man yàlla nan laa mujjeeg ñoom ci ak mbugal leen ci alag leen loolu kon ñoom war nañoo xam xalaataat ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon <clears throat> yàlla day bu buggee ci aw xeet mbugal leen ah kenn mënu ci dara bu ko neexee mbugal leen waaye nag moom mooy buur moom mooy ki bëri yërmaande mu ne awalam yaraw xanaa gisu leen ila toyri ci picc yi fawqahum ñu nekk ci seen kaw nekk ci kaw di naaw soofatin ñu nekk ñoo xam ne ñu raasaloo lañ ñu rangaloo lañ picc yi nekk ñoo xamante ne nii ñu ngi ci kaw asamaan si dara jàpp leen ak seeni laaf ñu tegaloo nekk ñoo xam ne dañuy naaw amul kenn ku leen mën a jàpp wa yàq bit na ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi tàllal seeni laaf maa yumsikuhunna amul lu leen jàpp dara jàpp leen lu dul seen laaf yooyu rek waaw yàlla day wax rek kàttanam boo téenee ci kaw asamaan xool picc nu ñu rangeloo ak seeni laaf di naaw yaa nga xam ne ñii doole yàlla lañu àndal maa yumsikuhunna amul lu leen jàpp ila rahmaanu dul ki nga xam ne mooy ki yërëm ñëpp muy yàlla innahu moom dëgg-dëgg yàlla bi kulli shay'in ci bépp mbir basirun aji gis la ko yàlla gis na lépp waaw yen bu ngeen xalaatoon ni rek picci yi naaw rek man maa leen jàpp man maa leen jàppale ba naaw kon du ngeen dellu si sama du ngeen dellu si borom bi subhanahu wa taala yàlla mu ne aman haza allazi anakan mooy ki nga xamante ne ya huwa moom jundul lakum day nekk soldaar ñeer leen yan surukum boo xam daf leen di mën a kan moo leen mën a jàppale yéen buñ leen yàlla naree torox toroxal wala mu nar leen alak yéen yéefér yi ana kan moo leen mën a jàppale amul amul ku leen mën a jàppale min duuni rahmaani walis yàlla amul ku leen mën a jàppale ku dul yàlla subhaanahu wa taala kan moo leen mën a jàppale ñëw nekk ay soldaar yoo xam ne dañ leen di dimbale waaye yàlla mu ne inil kaafiruuna dëgg dëgg naka yéefar yi illaa fii xuruur nekkuñu lu si ay waru di waru rek di jayu ndax seen bopp waaw xam nañ ni moos bu leen yàlla naree mbugal kenn mënu leen see dimbale waaye nag seytaane moo leen di wor di leen nax ñu nekk ñoo xam ne duñu delloo seen xel ci yàlla yàlla mu ne aman haza allazi anakan mooy ki nga xam ni ne yarzuqukum moo leen di wërsëgal kooku day in am saka bu tiyee wërsëgam boobu te kooku mooy rahmaan mooy yàlla <clears throat> bu tiyee wërsëgam boobu ah dina metti ci yéen de xoolal yàlla ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñëpp lay wërsëgal ndax mooy arrahmaan mu ne nag bu téyee wërsëgam boobu dina metti ci yéen de hmm? balli fi nekk kay lajju dañoo doyadi dañoo féttéerlu fi otu win ñu nekk ci ak réyréylu ak téppéerle wanu fuurin ak bañ dëgg bañ nañ dëgg nekk nañ ñoo xamante ne ñu réer lañ ñoom yéeféer yi yàlla mu ne afamay yam si ana ki nga xamante ne moom mooy dox <laughs> mukki ban mu nekk koo xam dafay dëpp ala waji ci boppam kiy doxee bopp sëgg di doxe boppam mooy ki la koy misaale ah ndax moo gën a jub amay yem si ak ci ki nga xam ne dafay dox sa wi yéen nekk ku yemoo ala siraatu mustaqim ci yoon bu jub yàlla di misaal ki dëng ak ki dëngut ak ki jub mu ne ndax kiy dëng kiy dox di doxe boppam sëgg boppam ci suuf tànk yee féete ci kaw mu ne ndax kooku nga xam ne du gis dara moom moo gën a jub am ki nga xam ne dafay dox ci yoon boo xam ni yoon bu leer la yoon bu jub di doxee ak ay tànkam ñoom ñaar kan moo si gën a jub yàlla mooy xarañ mooy xakim gis ngeen misaal bi ni ko nim mu ko nim ko dóore yàlla mu ne huwa moom xul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa moom yàlla allazi mooy ki nga xam ni anshaakum moo leen sos dafa dara nekkut moom moo leen defar ngeen bàyyi ko ci toq mànn yu ba mu yàgg mu nekk lumbu deret ba mu yàgg mu nekk suux bu dëgër ba mu yàgg ñu def ci ay yax di ko yemale ba ngeen nekk doomu aadama kon mooy ki sos yalla mom xam lu ko nit weddi weddi man nga koo nangul ni moy ki sos doom adam wa jaala lakum mudafal len as-sama'a deg manam ay nop wal absara ak i bët ngeen di gis gis nga fi ci xereñam daf ne dafa leen defal deg ak gis waaw manam dafa leen defal nop ak ngeen di gis wal afidata yalla dafa leen xel yo xamni da ngeen ci mën a xalaat ba xam deug ak li nga xamni du deug yalla mu ne waaye nag lu néew ngeen maa na ngeen di sant yàlla wallahi buñ ko doon sant ci xéewali bët rek mënuñu koo matal buñ ko doon sant ci xéewali nopp rek mënuñu koo matal waaye nag bo buur bi subhanahu wa taala ku bëri yërmande la ah, kon nag ku jara sant la lii lépp moo ñu ko defal ba pare nag xalilan lu tuuti waaw maa tashkurun ngeen di sant yàlla te dañ ko war a sant ci njëkk bi nga xam ne moom la ñu defal qul waxal yow muhammad huwa alladhi moom yalla moy ki nga xamanteni zara alakum mo len jëmbatal ci kaw suuf mo len jëmbat ci kaw suuf jileen manam wacc len ci kaw suuf wa ilayhi ta si mom yalla tuhsharuna ngend delu yalla mo len indi def len ci kaw suuf waye nak bu len fàtt ne ci mom yalla mom ngend delu dellu fa la leen di fa ngend di fa ngend di wat ci kaw suuf mune wa yaquluna dañuy wax ñom yefari mata haazal waadu kañ la dig bo di ñëw mu yowmal xiyaam in kuntum sadiqin bu dee wax ngeen dëgg su yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ba sonn xam nga luñ koy wax dañaan ko yow Muhammad lii ngay digga nii mu yowmal xiyaam kañ lay ñëw bu dee da ngay wax dëgg la rek na yowmal xiyaam ñëw tey tey tey a yàlla ne Muhammad waxal xul waxal yow Muhammad innama al ilmu naka xam-xam ba inda allahi ma nga fa yàlla yàlla rek moo xam kañ lay ñëw wa innama ana waaye man day nadirun ku leen di xupp laa mu man dama ñëw rek pour xupp leen wax leen li yàlla bëgg baax leen li yàlla tere waaye nag yowmal xiyaam kañ lay ñëw yàlla rek moom moo ko xam yàlla mu ne fa lammaa ra'awhu bañ ko gisee zulfatan mu nekk aw niir si at eh, ñaaw na bon na wujuhu lazina kanamu ñi nga xam ni kafaru weddi nañu yàlla ba nga xamante ne nii nag yàlla mi ngi leen di mbugal ñu seen aw niir muy ñëw mu nekk zulfatan mu nekk loo xamante ni lu jege la daf leen a jege ba yëf yi ñëwee ba jege leen mbugal ma yàlla mu ne keroog day si at ñaaw na wujuhul lazina wala bon na kanamu ñi nga xam ne kafaru wedd nañ waqila ñu waxees haza allazi kuntum bihi taddaun ay waay lii de mooy li ngeen doon weddi ndekete dina ñëw de bu ñëwee ba yowmal xiyaam ba mbugal mi ñëw bu boobaa nag yàlla subhanahu wa taala mu ne commencé nag ay lii lañ doon weddi lii de ñëw na ndekete ah tey de moom amul weddi moom tey moom amul weddi waaw mbugal mi ñëw na de lii lañ doon lii lañ ñu doon uh, xuppee ñun nag ñu weddi woon ne uh, bés penc du ñëw yàlla mu ne qul waxal yow muhammad araaytum xanaa xamu leen in ahlakani allahu bu ma yàlla alagoon wa man maaya ak ku ànd man aw rahimana wala mu yërëm ñu fa man yu jiirul kaafirina ana kat mooy làq yéefari min azabin alim ci mbugal mu màgg kenn mu leen a làq dul yàlla xul waxal li fi nekk kay huwa arrahmanu moy yalla mi beur yërmaande aman bihi gem nañ ko wa alayhi ta ci yalla rek tawakkalna naa la ko dimbandiku si yàlla la amuñu kenen ku dul yalla julit ñu loolu wax ñun gem nañ yalla te yalla si mom la sakku dimbal ndimbal waaw moom rek moy ki mag fa sa taala mu neen xal sa neen xam man huwa ku nekk fi dalalin mubin ci euh, reer go xam bu metta xam nga yefere dañ nan julit ñi dañoo reer ay yalla neen bu yomal ba ñew di ngeen xam kan mo reer ak kan mo réerul loolu di ngeen ko xam de bu ngeen dekkee yowmal xiyaam xul waxal yow muhammad ara aytum ndax gis ngeen in asbaha bu fekke dafa mujju nek ma ukum sen ndox mi rawran nek ndox mo xamanteni ni lu xoor la nis famay yatikum ana kan mo len di indil bima in main ci ndox mo xamanteni ni mu neex la bu ngeen di jëfandikoo bu yalla jikko jikko won téye ndoxam wala mu ko wala mu nakaril ko wala mu yóbbu ndox moomu ah mu ne bu boobaa anakat moo leen di indil ndox mu neex du yàlla de anakat mooy dawal géej yi anakat mooy dawal dex yi anakat moo ubbi bëtu sew nde yi yàlla rek moo mën loolu kon lii ab jaaj la yàlla di ko jaaj nit ñi yéefar yi di ko jaaj tamit képp ku weddi yàlla nga xam ne yàlla rek moo fi ne yàlla rek moo mën yàlla rek moo am moo am kàttan moom bu téye woon am ndoxam rek tey ñu sonn waye mënuñu ko sant ci lim ñu defal ci ay bëtte ki noppé ki lepp lo xamni defal nañu ko in tauddu ni'matallahi la tuhsuha kon li moy suratul mulki jeex na si jàmm yàlla ñu yalla defal dekk ak top wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qur'an ngi tan ya barina jang ko mangi wa ashrun ta harfu